Salif jërëjëf lu jëm ci euh, inondation yooyu nag ak euh, PDS euh, groupe parlementaire am la mu bëggoon ci assemblée nationale du ay mission d'information ñoom dañoo jàpp ne loole du fu genn gi li gënoon mooy ñu def session extraordinaire goo xamante dañuy convoqué woolu mboolem ministre yi laale ci mbiri inondation wallu xeex bi ci fànn woowu ko yi ci dugal lépp ngir leer lu ci loole nag nekk càkkutéef ñoom groupe parlementaire liberté démocratie assemblée nationale bureau ba daf leen ko gàntal terewul dinañ wéyal xeex bi ñu nekk seen njiit Wuli Mbàkke ñu teewlu ko xaaj Seydou Nourou Ba. ndax bu ngeen fàttalikoo juillet 2010 euh, gouvernement président Abdoulaye Wade assemblée bi fi nekkoon dañ leen a woowoon déglu leen jamono jooje Beka Diop la woon ak Omar Sarr ak Samuel Sarr ñu indi leen assemblée nationale pour auditionner leen maanaam ñetti fan ñu leen di déglu ngir ñu leeral lan lañ def ci wàllu inondation yi. ma jàpp ne tey jii nii tey inondation yi am tey moo gën a garaaw yooya moo gën a metti yooya ba tax na tey jii nii ba tax na tey jii nii. maanaam euh, jaadu woon na tey ñu woo leen tey déglu leen ñoom benn par benn ñu leeral de 2012 ak 2020 maanaam lan moo fi dugg xam nga ñoom ñun dañoo am droit jël article cinq may nañu ñu demander assemblée nationale pour ñu def ko. ñoom ci seen bopp ñu jël article quarante neuf ndax moo gën a oyof ne ñoom mission d'information la ñuy def. mais lan mooy mission d'information ñëw gis sapeur pompier yi fii nu mu mel mu ne ah nun am nañ benn pompe ñaari pompe déedéet dañu war a woo ñi nga xam ne ñoo jëndoon pompe yi de 2012 à léegi ñu xam moto pompe yi ñaata moto pompe lañ jënd moto pompe yooyu ànduñu fan la ñu nekk léegi suñu réaction mooy am na leneen loo xamante ne mën nañu ko danañu xool li nga xamante ne suñu règlement intérieur may nañu ko aussi ñu def loola xool ba xam nan la ñuy def pour que session extraordinaire am ndax loolu mooy suñu bëgg-bëgg ndax xam nañ a leeral mbir